les fossoyeurs de la République bëri nañu des gens qui ne cessent d'insulter la conscience des Sénégalais et des Sénégalaises qui ne sont rien d'autre qu'une coalition d'hommes de paille nañ leen moytu ñu xool ki jar a far ni ngeen def erreur yi askanu Thiès def waxuma Sénégal Thiès lañ koy commencé parce que Thiès la ñu nekk moo waral ñuy def un week-end un quartier dem di nemmeeku gox-goxaanu Thiès yi di waxtaan ak askanu senegal tey gis ngeen mairie yi ba ñu soxlaa joxoon leen ñu da ngeen ñëwoon gannaaw te naa de tey ñooy nekk di faj buumu gàcce yi fii si Thiès te ba ñu soxlaa tànnal suñuy loxo da ngeen jël ñoo xam ne askanu Thiès xamuñu leen ngeen fal leen yàlla nattuwaat leen ña ngeen fal jiit jiital leen parce que ku am problème prébende de sinécure nga jël jiital ko si ab maire yi balaa mu lay tal kollam lay njëkk taal moo ñu dal tey si maire yi nga xamante ne ñoo ñëw jiite gox bi jot na nag ngeen soppi doxalin soppi doxalin bi mooy au soir du 25 février ngeen soppi doxalin soppi taxawaay jël carte yi ñu àndandoor fal le premier ministre Amadou Ba au premier tour bi ñu commencé ba léegi def un week-end un quartier ñaanuñu yàlla dugg fenn dige fa te suñu borom du ko mottali bi jóge ba léegi parce que ñun duñu caaxaan suñuy jàpp jàpp nañu bu ñu wàccee pour politique dinañu politique mais lépp ci dëgg lañ koy teg moo waral ñu ñuy attaqué foog ne bu ñu xoqatelee dinañ dellu gannaaw man leen man ku may yëpp daf ma fekk may nelaw waaye fa ma nekkoon démb tey la gën a dëgër te yàgg naa ko waxit Benno Bokk Yaakaar kenn moo fa bàyyi muy la personne du président Macky Sall ndax ngorom ndax mbaaxam ndax laabiram ndax amour bi mu bëgg Sénégal ndax ku xool Sénégalu démb xool Sénégalu tey xam na le président Macky Sall a réussi de transformer le visage du Sénégal le président Macky Sall a un bilan positif dont nul n'en doute bëgg gi mu bëgg Sénégal dimbale askanu Sénégal bu ko neexoon mu présenté wu parce que ñëpp xam nañ ne président Macky Sall mën na présenté wu troisième mandat mais ñay wax di xoqatal ñay wax di sos xam nañ ne bu taxawoon dëggal boppam ñun danañ si ànd ak moom parce que bu joree joxe suñu bakkan dinañ ko joxe parce que xam nañu candidature président Macky Sall mooy naatal Sénégal parce que commencé na ko ba pare. tey la mu jël troisième candidature bi teg ko tànnal ñu nit ku bëgg Sénégal tànnal ñu nit ku xam administration muy la personne du premier ministre Amadou Ba muy artisan wu plan Sénégal émergent ku mel noonu. ko gannaaw mooy suuxal Sénégal ku mel noonu bàyyi ko gannaaw mooy lëndëmal koom-koomu Sénégal est-ce que ñun tey war nañoo nekk des acteurs et complices su luy suux ak Sénégal wala luy delloo Sénégal euh, gannaaw donc Sénégal bu président Macky Sall tabax jàpp nañ ne kenn moo am les compétences bu war a mun a traduire la vision éclairée de son excellence monsieur le président de la république muy le premier ministre Amadou Ba. yéen waa Jaxaw Kanda maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen gërëm ci seen i taxawaay parce que vous avez fait une mobilisation exceptionnelle parce que quartier Jaxaw Kanda ñoo génn ngeen taxaw. gunge seen borom kër gunge seen frère gunge seen baay gunge seen ndijaay muy adjudant Dia ngir taxawaayam ak bëgg gi mu bëgg quartier Daxaw Kanda donc maa ngi leen di gërëm di leen sant.